kooru gay moolum géej o xaaj ibrahim gay fukki fan ak juróom-ñett ci koor gi du benn bu gay làqagum démb yëf yi sori woon na ci moom waaye jàppam ba moomu jarax tey jile mu ngi waat ci koor gi waaye xelam wi lay fooye ne mënu ci génne lekk information yi ñuy jàllale ci rajo bi sax lu ci dul lekk mu boloke ay marché jën jaaykat yi ci mbedd mi o DG du tax lii lépp faw nga wor rek naka mu xam ko naka la ko sànjaafoo teewut moo ngi muñ rek micro ak biroom taal ordinateur am dugg ci youtube bi di duufal ay gëtam ay palaa yu bakkane lekk gune gay visité di xor rek di taxamte ko ah ay taxtana koor gi ah lii ci o DG moom cundum ci bureau bi comme ku yenu dàll yi youtube ba moo koy wéttali bépp site buy wane lekk DG nemmeeku la naka mu toog tuuti rek su fi tàmbali jeu concours o DG ba muy dugg sax euh, teyu ko ne lekk yi la xel mi dem bëgg gañe ci concours bi tax mu tàbb ci ligne bi di naxasaale lekk ga mooy li ko yitteel ci murtad léegi nga a a def. mutaat bi. si ko ci ndogu li. mutaat boo jëlee tey ngay defar sa salade. def sauce vinaigrette bu baax. nga jaxu. oh DG. foo mu tudd ganaar yi. ganaar gi nga def si mutaat bi. gis nga ko war ko lakk sa fuur bi. oh. <laughs> ku ko baax. baax muy laaj lu lislaam wax. ku <laughs> li lislaam wax xam nga ko jërul di laajte. oustaz yi rek ah. oh, géej. nii la nekkee dundam lépp lekk ak naan la moo tax weer wi weeru diis la ci moom te kat weeru yërmande la ne fukki fanu yërmande yi dal dinay jeex ñoo ngi toll ci fukk fanu njëggal yi war a dëgmal fukki fan goreel ci safara xaaj ibrahim yëf yaa ngi koy rëcc benn ak benn ndax bu xalaatee lii rek xelam su réeti suy ñam di wadd du ko tin ne biir bee ko tooñ o DG jooy yu métti la nekkee tey jile ajaratu sawda dal di dugg si DG noppi wut ndeke li gën a yàggal jooy yi lu roogaat rek DG taataan ci làmmiñ bi ajaratu mag la tax mu jëli action yi xaaj ibrahim xaw ma lan la ngay dof dof lu nii yow sa rankoñ yi di rogaat yëpp ak biir gémmiñ gi di naana ndox DG nga ne doo ma ko wax ñaar yoon Haj Ibrahim boole bu ci wax ci la bëtt mbuus ndoxam ba noppi teg ci sala comme yaa jàng woon bàkkaar nga gàddu ko